President neena jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Serigne Touba

Kibe. illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Non, non, garaawul na dem rek Váchala, váchala. Marte, Marte. No, no. en tuba!

ñu jàpp waay moom oto bi mooy gaare xoolal oto bay gaare da ngay comprendre rek ba mu jeex